aousubillahi mina sheytaani rajiimi bisimillahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonantam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama faay mën a nekk ñoo leen di jaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér di ko sàkku ci yéen rawatina yéen njàpp ci daaru salaam si faaw daaru salaam si faaw dana seet bu seetale wax la sarax wala wax sa càngaay foo ma dem defe ci ko fa nga dem defe ci ko sekkare fii jiidixa la fii jiidixa nag ba fa bari ay yoon waaye naa ci ñaari yoon ñaari yoon yi nag wala ñetti yoon benn bi day toj liggéey bi ci des moog buy toj cat bi dindi cat bi ci départ mooy bi ubbee kon doomu aadama nag jàpp naa ne ñaari yooyu moom war a gën a nekk yitteem ci kaw suuf doomu bu muccee ci pexeem noon mucc cat war naa fexe nag lu koy ubbi kon moom ñaar mënuñoo tàggali ko nit ki buy def ay càngat war naa jiital ci yaramam càngatu cat wala càngat luy lu koy gàllankoor ci wàllu yaramam bu setee ba pare mu door def nag lu koy war a ubbi waaye dem naa damay ubbi damay ubbi te sa yaram setut ubbeegu ko dana jafe kon fii di yow mi ci bëgg a dindi cat wala yow mi ci bëgg dindi liggéey bind ko trente cinq fois muy fanweeri yoon ak juróom trente cinq gannaaw ba nga jiitalee bisimilah rahmaani rahiim nag dangay bind fii jiidi xaar fii jiidi xaar rek ngay bind trente cinq fois boo ko bindee trente cinq fois ba pare nag da nga koy def saafara jël nga la nga bindoon nga def ko ci ndox fay ca juróom-ñaari xale safara boo ca fay juróom-ñaari xale safara pare da koy sangoo ñetti fan boo ko defee bu dee cat la wala liggéey bu dee ceram suñ borom mën na koo saafara kon wenn yoon nga ko ci fii ji daal kon muy la am solo yow mi nga xam ne da nga amee cat wala jàpp nga ne sa yaram bi am na liggéey bindal fii ji diha fanweeri yoon ak juróom cinq nga def ko saafara boo paree nga fay ca nag juróom xale safara yuy dund boo pare nga sangoo ko ñetti fan boo ko defee suñ borom bu dee wàllu cat ak yaram wu diis loolu mën na ko saafara incha allah bi fii ci toppaat fii ji ci liy ubbi. yow mi bëgg ubbeeku ci fii jiidihaa bindal fii jiidihaa cent onze cent onze nag chiffre nag dafa jar sàmm comme bu ñu la ko waxee bu mu ëpp bu mu yées code la moo tax cent onze boo ko déggee moom mooy code bu mooy kaaf yi dana fekk dana la yëkkati nga jëm ca kaw di kaw cent onze lu am solo la ci lim boobu cent onze lu am solo la mooy xut bu boo demee ci jumaa dégg nga lañ fay def bu wàll yi ka ca bu doole mooy xut bu bi benn wàll yi bala moo jóg daana jaar ci xutba moo tax ñu ne xutba tali awliya moom mooy jële ci yàlla servir yeneen wàllu yëpp nag loo kook mooy xutba am na ñoo ay wàllu yu simple lañ nag ak gun ci xutba waaye cent onze xutba la taxawe kaafi la taxawe boo fa xasee àgg da ngay doon xutbu te na nga ko war a àgg nag da ngay tiim ñëpp boole ko nag dangay ngay ci lépp moo tax li mu cent onze baax lool ci lépp loo koy liggéey nag cent onze bi bindal fii jiidiha cent onze téeméeri yoon ak fukk ak benn ngay bind fii jiidiha gannaaw ba nga bindee bismillaahi rahmaani rahiim ngay jiital nag ak salaatu ala nabi ba pare tamit nga tëjëwaat ko salaatu ala nabi nga bind fii jiidiha cent onze nga boole ko ak meew nga di ko sangoo meewu xar baax na meewu bëy baax na da nga ubbeeku da nga am bayre boole ko heure boo sangoo pare nag boo bëggee mu gën a gën a neex da ngay wird fii jiriha cent onze heure boo demee taj saafara soosu nga defoon mën nga ko sangoo nag vingt et un wala juróom-ñaari fan wala nga continuer ko a def ko xam léeg-léeg nga sa yaram xawee kii rek xawee affaire yi xawee dëgg rek nga dem sangu ci kon na ngay bind fii jiriha cent onze téeméer ak fukk ak benn boo paree da nga dem mu meew xar wala meew bëy loo ci am baax na nga sat ko ci saafara sa léegi nag nga koy xel di sangoo heure boo ko sangoo ba génn nag wirdal fii jiidiha cent onze da ngay wirdu fii jiidiha cent onze muy téeméer ak fukk ak benn kooku rek ku ko def ci kàttan suñu borom ubbeeku dana am ci ci wàllu wërsëg bi ci tëbba na beneen yoon ci wàllu wërsëg bi bu fekkee xobi déem jege na la mooy bu ci gaaw la wutal téeméeri xobi déem ak benn muy cent onze xobi déem ngay wut xob bu nekk nag da nga bind fii jiidiha xob bu nekk danga nga bind fii jiidiha benn yoon ba pare mu mat téeméeri xobi déem yi day mat ak fukk ak benn ba pare xob yooyu da nga koy def ci ndox nga bindaat fii jiite cent onze ci kayit nga boole leen ñoom ñëpp kooku ne moom lu yéwale moom boo paree mën nga ko ca ndox ma nga boole lépp heure boo xëyee ba sang moom nga wér di fii jiite cent onze ndax dém dafa barkeel moo tax moo andi boobu waaye boo bu yéemale ci ci wàllu ubbeeku wala boo mënta da ngay bind fii jiite cent onze rek ci xobi déem nga boole ko ci ndox lépp saa boo xëyee nga sangu ja wér di fii jiite cent onze kooku doon lu baax la ci lu ubbi doomu aadama ak lu koy yëkkati may ko cofeel ci doomu aadama yi ba tey nga def fii jiite mille cent onze nga wut xobi dem da ngay wut xobi dem nga wut mille cent onze xobi dem loolu daa waaw mooy laa taxaf boo ko defee du dóor rek mille cent onze bu ñu la ko waxee rek mooy laa taxaf bu ragal amutul looy ragal. lim bu baax nga ko moom it ngeen xam ko 1111 fu ñu la ko waxee rek mooy ragalatoo dara tiitatoo dara yàlla sécurité na en même temps sa day jàpp de day jub moo tax lim bu am solo la ñu koy jàpp di ngeen dégg borom xam-xam bi di ko joxe mooy 1111 mooy laa taxaf nga bind ko fii jiidaa 1111 moom it am na ñaari yoon bindal fii jiidaa 1111 nga boole ko ak meew di koy sagoo di wér di fii jiidaa 1111 dana ubbi doomu aadama te dana tax. nga am sécurité ci lu bari bu la neexee dem nga bind ko ci xobi déem wut xobi déem mille cent onze bind ci xob bu nekk fii ji di nga def ko ci ndox nga si ko sango heure boo sango ba génn nga toog wird sikar fii ji a mille cent onze kooku dana ubbi doomu aadama tamit ci lu yéem moom ci lim boobu kon loolu lañ leen tey leen ñaanal jàmm ci secret fii ji di ko sàkku kenn rawatina yéen jàmm na fii ci Daaru Salaam si waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu